dem ci terrain bi wax nga ko artisanat bu ñu ko dee seet am na plus de trois cent vingt corps de métier et dégg nañu tey ci sa dem sur le terrain nga daje ak le secteur de l'artisanat gisee ak les diplômés mais surtout le, le secteur informel euh, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui li dese président Macky Sall c'est trois ans ndax li nga dem taataan ko ni kaddu ñu dénk la ko dang koy tënk ci mémorandum jébbal ko ko wala bal doxalin nga fa seenee def euh, xam nga dafa am d'abord seetlu bu am solo boo xam ne il faut ñi ñi bàyyi ko xel ci seen ndaje mi ñu def démb slogan bi ci ginnaaw l'année deme slogan bi ñu def ci ginnaaw ensemble pour demain non am na slogan bu ñu def ci ginnaaw ensemble pour demain ensemble pour demain mais Macky ñun waxuñu ko pour demain xam nga Macky Sall lan lañ ko wax dañ ko waxoon ne démb ak tey yow lan la jox demain pour man la demain c'est pour nous la jeunesse demain c'est pour ceux qui veulent changer ce pays. kon ba tey jeune nga. mais Macky bu amee 60 ans ñu naan un président jeune di ko. natt ci euh, Moustapha Niass. demee boobu kay bugaan boobu ngay ñu waxtaan bi neex da nga siy génne sa bopp rek demee bi ma jël ko man Cheikh Oumar Talla xale yi ndaw yeeg yooyu mais yow. demee pour la est-ce que ay ambition la am pour demain demain pour la jeunesse. war nga teg sa bopp demain en 2024 demain pour la jeunesse quand je dis pour ñun la mais c'est pour la jeunesse en réalité pourquoi parce que au Sénégal dañu am la moyenne d'âge est de 19 ans. gis nga ku am vingt ans bokkatoo ci jeunes yi boo amee vingt ans au Sénégal bokkatoo ci jeunes yi parce que tu es de l'autre côté mais je di encore une fois bu fekkee ne Macky Sall mi am 60 ans la ñuy jàppee un président jeune parce que suñu maam Moustapha Niass am na 85 ak nangam sangam Macky Sall doomam sama morom la mais jàppe nañu Macky Sall ne un jeune président alors qu'à 60 ans boo dee enseignant dem nga retraite bu ñu ko mënee jàppee moom un jeune président mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci quarante quatre lu ñuy wax. waaw léegi si sa eh, alors maa ngi ma. je je je ah, je vais juste mhm. yeggale ma yeggale ci question bi. Mhm. invité nga nat de. Euh, je vais dama bëgg a yeggale juste. ah mu yeggale rek allez-y bu ngeen ma ko permetre ngeen ma ko euh, dama bëgg rek ñu ñu comprendre ne li nga xam ne mooy changer réew mi li ma gëm mooy. ci loxo jeunes yi la war a nekk mais faudrait que jeunes yooyu ñu conscient que ñoom dañu am rôle bu primordial bu ñu war a jouer lii changer Sénégal dañ ko def ñun suñu programme ñu ne ci gëm sa bopp fileeg jeune bi nekk ci dëkkam joxuñu ko environnement bu mën a tax ca biir dëkkam mu mën fa liggéey am fa teranga bu dee ne ñëpp dañu daw si jëm si ndakaaru jafe-jafe yi du musa a soppiku et on a l'impression chaque fois mbir mi remake lay doon ñu ne il faut un processus pour une industrialisation légère dans toutes les communes du Sénégal mais loolu dafay ànd ak une politique de défiscalisation graduelle plus ngay sori ndakaaru plus li ngay fay ci impôt gën a wàññiku plus ngay sori ndakaaru plus ñu lay jox ay avantages yoo xam ne dëkk ba ngay dem lu mu gën a sori muy Tamba muy Ranérou muy Ourossogui di nga mun a fexe ba ñii di jeunes yi nga mun leen a employé mu doon luy dimbali réew mi mais bu fekkee ne dañuy li dañuy defar yoon xàllal yoon xale yi te l'existant téyewuñu ko c'est un problème la Covid a impacté 4000 entreprises on nous parle de 40 000 personnes dans le secteur formel ñu perte seen ay emploi lan la ñu def pour ñooñu est-ce que bàyyi nañu leen xel c'est pourquoi je di ce secteur informel bi nga doon wax léegi euh, Fatou Abdou secteur informel boobu ñu ne ñooñu jóg nañu ñu ngi jéem mais nañu leen encadrer nañu leen nañu jël ay décisions politiques forte yoo xam ne dinañ si dellu si certainement ci biir waxtaan bi parce que tey bi ma demee ci terrain bi daje naa ak benn jeune bu tudd Alassane day defar ay dàll mu ne dàll yi bu doxul moom Alassane moom Assane mu ne Assane mu ne dàll yi bu doxul day jël scooter am dem defi cag-cag mu ne dem na ci géej gi ñeenti yoon ñeenteel bi rakku papam ci ay loxoom la deewee mu sànni ko ci biir géej gi te mu ne bu gisaatoon suba juróomeelu gaal buy dem mu ne moom dina dem su ma su ma rangoñ tuuti mu tuur regardez ce niveau de désespoir et mu ne loolu lan moo ko ko teg mooy ñiy jël ay décision te bàyyiwuñu leen xel mu ne moom day defar ay dàll mais dàll bu mu defar am ñoo xam ne danañ dem bitim réew defari ko en Chine commandé ci ay milliers ñëw dugalaat ko ci réew mi de ce fait que liggéeyam du dox mais moom il n'est pas le seul il y oh. combien de Sénégalais dans différents secteurs qui sont dans l'informel les menuisiers dem nañu gis leen seen ay meubles mënuñu ko jaay pourquoi parce que dañu am ay importation yoo xam ne ñoom mënuñu ko concurrencer c'est pourquoi je parle de décision de politique extrêmement forte loolu yëpp dinañ ci ñëwaat parce que c'est important également qu'on parle euh,